mbokk yi ñu ngi leen fi oo tey ci siège national bu Sintes ndax démb ci ngoon dama toog jot benn information ñu ne ma ah président de la république day recevoir ñi nga xam ne ne ñoom ñoo séq enseignement supérieur muy ministère ba directeur recteur yi directeur centre des œuvres ak ñu yor syndicat enseignant ñu yor syndicat travailleurs yi ak ñu yor amical étudiant ñun nag SYNTES ñu nekk syndicat bi nga xam ne ne ñu ngi ci campus Sénégal yi nekk syndicat bi nga xam ne bokkuñu si yëpp doole wala mën na am parce que da élection sax ñu nekk syndicat bi yëpp doole d'enseignement enseignement supérieur du côté administration technique à service Mais suis venu à dem délégation pour dem bu ñu def délégation kenn mënul fait le synthèse boo ko defee dara tax te loolu moo am ñu seetlu nag ne bi syndicat bi juddoo en deux mille dix neuf ba tey ñu am suñu récépissé en bonne et due forme bind courrier enseignement supérieur yëgal ko nekk ci université à centre des œuvres di liggéey liggéey bu mucc ayib ba tey jii Cheikh Oumar Anne musul ñu tontu musuñu oo ci rencontre am yi muy oo syndicat yi musuñu boole ci ay mbiram xam ngeen ne bu jur syndicat mi ngi ci dirigé par Birima Ndiaye le site nommément mu nekk xaritu Cheikh Omar Anne bu bu egg nañ ci def ay révélation ne jàppale xaritam moo tax mu ñàkk ñoo yitteel ñàkk ñu faale ñu ne garaawul parce que université enseignement supérieur recteur yi ak directeur de centre de service ñoo ko yor ñoo koy fonctionnel même bu liggéeyul ak ministère bi wàññiwu la dara waaye nag bii son excellence di recevoir l' enseignement supérieur defar délégation boole woo ci synthèse da fay doon lu ëpp lu kenn mënta nangu ndax nag dafa am ay coono yu travailleurs yi nekkee ñu nekk syndicat bi nga xam ne ñun la travailleurs yi yaakaar pour ñu xeexal leen loolu ndax syndicat bu judd rek ci 12 syndicat yi fi nekk judd ëppale nit ba nga bokk suñu ëppale nit Nous naa ne doon doon mais indication que travailleurs de dégoûté wu ci yenn syndicat yu bëri mu adhésion forte c'est un message à l'endroit même de ñuy diriger enseignement supérieur comment ça se fait qu'un syndicat qui est né il y a trois années mën egg ci y a une perte de confiance par rapport à beaucoup d'autres syndicats mais aussi une adhésion vers les personnes là qui dirigent le SINTES nga war leen jox cër ñu am liggéey avec l'enseignement supérieur en 2018 muy révision suñu décret 2103 ba ñu tënk ko ba ñu ko jox président son excellence Macky Sall pour me signer ko 2018 ba tey ce décret là kenn signé wuñ ko le président wóor ma jot na stable am ba ko jotoon signé na ko bu yàgg ndax ñu ñëpp xam nañ ne seede nañ ne enseignement supérieur Macky Sall def na fi lu nekk ce que aucun président n'a eu affaire dans l'enseignement supérieur investissement ci taxaw muy ci enseignants yi muy ci travailleurs yi muy ci étudiants yi donc bi ñu ko joxoon projet décret crédit da koy signé la décret go xamne ne dafa pas. dañ né dëkk statut bu nek chaque 5 années bi amna ñaar fukki at ndax depuis 2000 la won donc tay dañu waroon dem ñu demone François de porter cette parole là au président mais aussi avec les mots qu'il faut parce que ku nek mën na porter une parole mais avec la façon de faire ça parce que li ñu ñoko Il liggéey a yeneen syndicat

c'est une pension bu pension, nous devons demander ñu am au moins 75% de à la retraite suñu salaire Nous devons nous permettre ñu une retraite digne L'année fi bo fi dem mi sikap mi HLM bëgg a jënd kër wala société li est dagg de commencer entre 150 000 et 300 000 mais lu mu l'université, il mais travail université fu mu jëlee xam bu ko defee du fay location xam dootul dund xam fay école pour ay doomam du faj ay doomam du ñu solu mu doon lu diis ñu laisse ñu en rade par rapport à ñun l'acquisition au foncier mën na am ay kër yi mën dugal suñu njaboot le ministère ne nous accompagne pas tey ñu waroon toog wax le président ne ko jàppaleel travailleur sa université Sénégal yi à des désœuvrer. yi ndax ñu am ay suuf am ay ci habitat social jamono intégrer l'enseignement supérieur à l'intérieur waaye yemul ci ñu aussi coopérative yi nekk ci université pour on a am pour travailler. même sa régularisation est ça, dafay compliqué si ñoom bu gens boole sa liggéey tout utum këyit tu watch, ça dafa mettre. même dans ce cas là l'accompagnement des coopératives des universités et des centres des œuvres pour la régularisation de leurs fonciers amuñu ko loolu tamit ñu war occasion demander ko le président de la République mais aussi l'université. xam biñu ñu mujjee négociation si biir protocole d'accord bi 2018 dañ ne woon dañuy yokk travail université yi université bu nek wax limu mu li mu soxla assemblée des bu nek wax limu soxla ñu bind ko ci ab këyit ba tay c'est pas appliqué waye tamit lolu yëpp ñak waxax les vrais acteurs de l'enseignement supérieur ce qui porte le message en réalité des travailleurs moy tax le ministre du ko meuna xam wala mu xam ko bañ ko lijjanti waye mom ministre bi na xam ne li mu il est responsable de toute perturbation lepp lu am ci enseignement supérieur jamono yi mom la ndax nak yenn yi day meuna day meuna a ñuru mel ko sabote liguey président da Macky Sall mënu fee nekk di bopam ci dëkk bi lu ne mu def ko yow nga nek fi te doo bàyyi xel acteurs principaux yi doo bàyyi xel seen revendication ak préoccupation donc l'identité, ba pare ñuy wax ngay mettre en rade des syndicats ce qui est anormal au vu des conventions de l'OIT constitution Sénégal Accord code du travail ñun nag dinañ suñu matuwaay dañuy oote bureau national bu soobee yàlla dans les prochains jours pour def un plan d'action Dakar, jàkkaarloo ministre enseignement supérieur Cheikh Mahan bu delluwul ginnaaw ci nu muy def soppiwul doxalin nous am devant lui te ñépp nañu xam le syndicat est en face du de de ministre de l'enseignement supérieur pour jëfa un terme pour l'intérêt des travailleurs donc loolu moo fi nekk mooy naxar bi nga xam ne moom syndicat sam tey jii rencontre bobu ñu wara def l'absent le plus présent ça sera François Touré et son syndicat Syntes ñom ñep xam nañ ne depuis nous si guddi que dañu juum dañu yag def nak may nopi mais à partir de maintenant dootuma noppeeti syndicat dootul noppeeti on va réagir en conséquence